Bougane mel ni jéegu naar bu teg greffage nooy nepp mel ni pëddum nen lu mënal ku résister Macky Sall ba jaar ci kawam jàll. mbokk yi asalaamaaleykum. wala kano. bu la wanee ginnaaw nga defe ne cœur brisé la jóge ah bi yow nit koo xam ne xamoo biir beeg taar yu ci ëpp nga naan lii amut amut ah? di dëxër dëxër yi yow. bukan bukan bu dee charisme gitu. <laughs> bu jomaa ko ko ëppale parce que yow mënoo xam ba xam castingu kër bi ni sa la bàyyi ko fa mu góor di wëgër wëgër ah léegi yow te bugaan seetlul bugaan buy def conférence de presse no xara rek conférence de presse bu bugaan conférence de presse bu bugaan xam nga lu muy def dérapé wu ma président de la république nga ne amul charisme te yow lo hmm. am yow kan mo am charisme wang moy charisme <laughs> wala kaano ziare naa leen gars yi ci li ngeen ne baa yéen a si jàmm bu baax a baax a baax a baax ak lu mu ci man di doon rek bugaan bi jël na coup li nga xam ne nii moom la bugaan encaissé bugaan dootu ko mos a encaissé lii moo tax képp koo xam ne nii yaa ngi waaj di dugg ci patriote yi faaw nga xoolaat bu baax a baax a baax li ngay def faaw nga waaj ko bu baax a baax ndax ñii boo duggee ci ñoom li la ciy génne doo ko xam te bala ngaa génn di daw faaw nga encaissé te kii di Bougane Gueye Dany nag encaissé na encaissé na lu saf sapp tàng jër gaay lii nag lañ bëgg a waxtaan bi moom seex Cheikh Bara Ndiaye ñëwaat na ni ki tey fële ca Walf daal di ci yaatalaat bu baax a baax a baax li nga xam ne moom la Bougane Gueye nekkee ak ki nga xam ne ni moo di Yérim Seck ak kii di Badara Gadiaga li nga xam ne moom la nekkee di wër ci réew mi di wax te kàcc yi kase moom Cheikh Bara nag def na comme ni ma ko daan defee ñëw na indi ci ay leeral gaay ñu waxtane ko yaatu ko rek ba mu gëna yaatu ñu déglu ci ci di Cheikh baara ndjay limu ci wax. ay dama bëgg nga xamni ñett rek la bu dé Badara Gajaga mi ci wax Badara Gajaga amul lu mi perte ci aduna wax deug ak wax fen ñoru. dét pour wax non non mais lan la politigul wutul mouvement man politicien yi ko bëgg def gain di ci wax la bëgg wal parce que Badara ga moom politigul amutul mouvement Badara Gajaga bu àdduna bi bu yàlla ne nan lakk Sénégal bàyyee ko fi yére yi muy sol pour moom garaawul mom nit la ko xam da yakar yaakaar ne àdduna soli yere takki weer jàmbaar bu wax lolou mais amna mom mi défendre Badara Gajaga mais am na expérience politique bu ko xam oh, ak parti rew mi yàgg na fa fi to te na ko wedd Badara Gajaga bu toogee ci plateau ne day défendre Seydou Kane moo la gën a xam ne Seydou Kane sàcc la fenkat la mais da ko fay déedéet bu wax loolu kàddu yooyu xaw naa mais lu ma wax ni lu mu doon waa saaga dañ ko fee dencal pour ñu ko def na gën a rafet mais dama ne ku jël dossier sénégalais maanaam état du Sénégal benn nga wuruj leen lekk seen. waaw faux usage de faux les autorités ñu fekkee c'est établi. man làkkuma tubaab sama waay xadi euh, làkkuma tubaab wolof laay wax dama ne faux usage de faux mooy lan lu dul sàcc ak fen sàcc la fenkat léegi ñeneen ñi ciy wax ba Badara Gajaga dama ne la Badara Gajaga ak bu ak yirim yirim dafa alko ay yirim wax billaahi yirim boo ko woowaatoon fayaat ko mu weddi waat li mu lépp yirim dafa nekk ci problème bu rëy dafa alko Cheikh Ba nañu débat de personne ñu dem ci deuxième non mais ñoom defuñu débat de personne non nañu bàyyi débat de personne vraiment Yérim Seck toogul traité de traité de état du Sénégal le ko neex traité ñoom sans misère lu leen neex alors pour mu ko yo yow nan Bougane Gueye man la ciy waxal sax bu amee lenn lu ma ciy wax moy mom leader de parti la dafa bëgg gagner confiance su sénégalais su fekkente ne nit ki dafa def faux usage de faux def surfacturation sàcc fen togn. nga ne da ngay politique ñew jël dossier bobu ne da nga politique bis bu bis bu document yi gennon tay. wala mu dem yoon bañ wané ni ki sacc kat la fen kat la légui mom lan lay wax sénégalais d' accord ñu moo tax politicien bu ko jël di ci wax mom sa bu mbir bi bu document yi may wax ni lu ñu war a bari na xaaral document yooyu bu demone ba génn ci biti yow li nga wara def moy dem fatu ci parce que amato loy wax sénégalais yi parce que yow yow ben moy yow tolo ci dénoncer sacc mais nga ngay ci faral sacc té lima wax ni ay man amul luma ci inventer wallahi sa misal musuma ko gis musuma ko dégg téléphone état du sénégal la yoré lepp luñ wax dama koy xol gis nga bu fekkon saint michel mo togn fi lay tok ma wax dégg mais ñom yirim bu dee yirim mom yirim barki dem dong dégg nga li wax sénégalais yi ay sa Diop Fall ne ko yow daga amna lu amna affaire bagage yu ma lay déggal mu ne ko arrêté taxawal bam taxaw mu ne ko Sénégal gépp ku sell fi ñu ne ko han mu ne waaw parce que ñepp dañuy macc xorom dañuy macc sucre kon ñepp amna lu ma leen xamal Sénégal gépp lolou du sax te mom da warona wax ne man Sénégal gépp amna luñ ma xamal man parce que mom lañ fi mas japp jàpp ci yool tejj ko kasso mu génn ñi jàppaat ko ci biiral nit di yàq biir ba. ñi Cheikh ba dëgg la dañ dañoo dem ci benen waxtaan. mais ku taxaw ne Sénégal gépp dañuy jigéen ci ma. nañ changé débat bi. soxna xali bu ma jax wala galo ah, bu di question jaxase kay. bi dëgg ko mala dëgg di wax ci affaire bi yool waxal ku taxaw Sénégal gi ni mu toll. irim sek mu ne Sénégal gépp xamal na leen mbirum jigéen. ku sell nekku fi alors te yow mi koy wax arrêté nañ la parce que da ngaa da ñu arrêté waat la parce que da doon yàq biir arrêté sa doom parce que dafa violé yow kooku mooy taxawaat jàkkaarlook peuple Sénégal parce que moom tax na mu ne peuple Sénégal bépp dañ mais nit gis nga man samay wax bu garaawee bu garaaw duma ko wax ku ma ko wërta wax parce que loolu moo gën a garaaw taxaw peuple Sénégal bépp la wax ne dañuy jigéentu amu fi ku ma ci xamalu dara motax man tax man tax man fa ma toogoon di ko wax dama wax sama soxna manako ki dafa dof kon parce que bu fekke senegal gep ñi ngi ta te ñu kenn yow lañu japp di japp sa doom kon kay yow nit ñi ya, ñoo la gëna a intelligent te mo def nit ñepp yi def ko ñëpp a ngi xam nako ba pare mom dong lañ ci tecc tecc ci doomam te jëtti ko ci wala kon lolu gis nga lolu lañ wara arrêté yor say milliard so defé sa defaa nga wune weng dem jëndi mbadara ga jaga mu gëmul dara jëndi bugan mu gëm bugan sax wóoruma ba xam bon fo ala ci démé wala demeewu ko ci parce que bu demee bay def ay pelante xay na moom mi ci bonne foi mais Badara Gadiaga ak Yirib moom ay mercenaire rek la. d'accord léegi mercenaire micro rek la. kàddu Cheikh Bara Ndiaye yi képp ku ko déglu dégg-dégg moom Cheikh Bara day wax te li muy wax day leer naññ mu am fu mu ko teg foo xam ne nit du ko dindi kii di Badara Gadiaga nag ak Yérim Seck nañu xoolaat seen bopp Badara Gadiaga yi Cheikh Yérim Seck nañu xoolaat seen bopp ndax sénégalais yi nawlootuñ leen. moom Yérim génn bi mujjee génn dégg ngeen ko la mu wax Yérim Seck nee na heure bu waree génn wax ak sénégalais yi kii di président Diomaye day coupé courant bi loolu nag moom bu ngeen ko xoolee xam ne dara dara du ci dëgg dara du ci dëgg moom Yérim kàddu yooyu nga xam ne yëkkati na ko wax dëgg fa yàgg ndax moom Diomaye amul benn intérêt di coupé ab courant boo xam ne nii ñu ne lan la ñu ne Yérim wax te Yérim fan lay waxe Yérim waxewul ci télé yërëm waxewul ci télé te mom ki di président Diomaye li jëmti ko faalewu ko ki di Cheikh Bara ndjay nak limu ci wax rek doy na seuk seuk ak baat manam nak ñi di wa passé li leen wax rek Sonko ku ko songu sànni Cheikh Bara ndjay rek doy na ci tontu képp ko xamni ni nii wax ci président Diomaye premier ministre bi Ousmane Sonko Cheikh Bara ndjay genn na tontu la rek doy na seuk doy na seuk ak barke ñeneen ñi di genn ñi nga xamni ni ñu ngi ci liggéey bi di liggéey réew mi bari yoo xam ne nii dafa nekk urgence ñu war cee nekk taxaw ci Cheikh Bara doomu doy na ci tontu ñi nga xam ne ñuy wër di mbéreele li di wax classe bu Bougane Gueye Dany géeg Yérim Seck géeg Badara Gadiaga gi ñi nga xam ne dañuy wër di kàcc Cheikh Bara nag wax dëgg fa yàlla maam li ñu naan soo ko ko sonk sànq wala kano ñii <laughs> ñun <laughs> ñii soo songu leen laa la wax de waxuma la sànq waaye li nga ci mën a jëlee li nga ci mën a defar bi nga ci mën a jël maam mën ngaa toog fukki at doo defar rawatina ngay nekk politicien da ngay raaj réew maam boo leen songee lii nag day wane ne kii di Ousmane Sonko ku ko songu ndax Cheikh Bara Ndiaye tontu na kii di Badara Gadiaga Yirim Seck borom kos bu bees tontu ki nga xam ne moo di Dany Guèye Bougane njiital leen di seen bopp. moom kenn ma xàmmewul biir beeg taal bi man nag Cheikh Bara Ndiaye jamono ji dama koo wax ne ko moom ci boppam. wala kàddu moom Cheikh Bara ci boppam ku ko soxla sànq ko ndax gis ngeen kii di Bougane Gueye Dany ci boppam génnoon na fi di attaque kii di Cheikh Bara bi muy wax naan ay journaliste fenkat ay influenceur fenkat ay ndoxum ndoxum ndoxum fenkat moo tax kii di Cheikh Bara tontu ndax nag lii la ñu naan tontu bu forox cheikh bara ndjay wala galo bugan gi dani ginaaw bi mu defé conférence de presse mom bugan diko attaquer li day wana na rek wa passef man nañ seen bor day na rek ñi ku leen songu sam li lañ naan sonko ku ko songu sam li mu wax nak ci badara gadara deug ju wër badara ak mouvement politique politique kon képp koo xam ne nii ab politicien nga di sukkandiku ci ay waxam ab dof na te buggaan noonu la commencé di def si waxi Badara Gadiaga la bëgg a sukkandiku ba tax na mu nekk ci yooyu mu nekk di wër di tappale nit ñi dañoo yeewu nit ñi dañoo yeewu Sonko yee na ñëpp yee na ñëpp yee na ñëpp la Sonko yee réew mi képp koo xam ne da fee taxaw pour ne da ngay opposé wu da ngay jéem a def ni Sonko defoon donte doo ko man nga jéem ko nga jéem a waxe xam-xam jéem a doxal jéem a jubal mais yow ñi nga nekkal da ngaa xulóog ñëpp ba ñu bari bàyyi ci sa télé nga bëgg a tourné da da ngay opposé wu sonko mi nga xam ne ni ñaata at muy opposé wu ba yàlla jox ko nguur gi mustu xulóog kenn wala mu def kenn naka su dul loolu moo tax ñu ne leen songo ku ko songu sànq songo sonko sa ëpp na mais baara njaay seex baara njaay borom def gis borom garabu garab yow bugaan ngay dani Cheikh Baara Ndiaye ku ko song sànq ndax ñam nga ñam nga kii di yërëm nag la ko seex Baara Ndiaye waxoon rek heure bu amee kos bu bees bu génnee fen yu bees lii ko seex Baara Ndiaye waxoon nag muy dëgg ndax yërëm ci boppam bu mënee toog ne moom yërëm bu mënee toog ne heure bu waree wax jumaay day coupé courant bi loolu di ay kàcc yoo xam ne nii yu tàng jër la yërëm waxiwut ci télé ci site internet la doon waxee ba pare yëkkati kàddu yooyu di wax yi nga fi wax yépp amul benn yoon boo xam ne nii jomaay. wala kano. jomaay sax amul sa jot wax dëgg yàlla jomaay amul sa jot jomaay amul sa jot ngeen di waxati yéen nga xam ne ay opposant ngeen bu ngeen di waxati bu ngeen wax ak Sonko premier ministre jot jomaay président amul seen jot ak ñi nga xam ne nii dañoo nekk ci gouvernement bi yor ay pastu ñooñu amuñ seen jot ndax nak ñoom dañuy liggéey dañ leen a yónni leen bu ngeen di waxati di leen wax ak baara jaay borom def gis borom garabu garab moom mooy faj gaay wala ngeen wax sax ngañ dem ba turé mi nga xam ne wana leen ci débat ngeen wax ak moom ngeen jéem a waxtaane xam-xam ak réew mi nañ ne na moom sonko la soxla wala président jumaay premier ministre wala jumaay ndax musta gis benn yoon sonko waxtaan ci mbooloo public maanaam wax ñu tontu la li nga wax d'accord ma ci li nga wax d'accord naa ci loolu nag dañ naa ko demal 2STV Pape Alé Niang moo doon def émission boobu Maître El Hadji Diouf nga ca woon bul yem ba nga nekkee yàggul Yërim nee na fii ñëppay màcc xorom ñëppay def nii def nii ku daal dëng moo tax wax ko Cheikh Bara Ndiaye nag bàyyilu ko dara dara dara lépp loo xam ne la moom mu nekkoon ca rek Cheikh Bara Ndiaye loxar ci na ko ba teg ko ci taabal ji lii day wane ne réew mi ñu nekk kii di Ousmane Sonko premier ministre bii ak président Diomaye ñenn ci ñi nga xam ne ay politiciens lañ ak ñi nga xam ne dañ leen di fay ñuy wax ñu leen Sonko def kenn mosu koo gis opposant yu bees yi kenn waxewu ci xam-xam ku ci wax boobu rëy ngay waxe ngay jaxase li ngay wax da ngay wax fii di wax fii bu xar mi mbeemee nga ne xar mi bu làmb tàkkee nga ne làmb bi kenn amu ci loo war a wax moom buggaan ngay leen mi rawatina yërim sek heure bu amé kos bu bes génn kàcc kàcc yi bes li bi nak li mo fi am am ñoo xam dañ leen defay ñuy wax am ñoo xam ne gëmu ñu dara dañuy wër di ndam ak ndam ngi di te dara gade rek ci la bu gan ngey Dany nak na yam ci xam place te xam ni fi ñu ko tontoo ngi fi ñu mëna wax ak mom ngi fi ñu am jottam ngi fi Baara jaay amna jottam borom def gis amna jottam te heure bu waxe mëna ko tonto nay wax mu di ko ak ki nga xam ak yi nga xam ne moo di maître Ngagne Demba Touré le Messi waaw bu dee da ngeen a bëgg débat wala ngeen waxtaanee xam-xam Ousmane Sonko débat wu président Diomaye débat wu ñoom ñooñu ñu mag ñi maam ñi yor tas yi di liggéey ñoom kenn débat wu ci ñoom dañoo leen a yónni yàkkamtuñu leen bu fekkee ne nag yor bëgg ngeen ku ndaw a ndaw koo xam ne mën naa wax ak yéen ci xam-xam ku xaw a ndaw rek ci parti bi comme ni mu koy waxee moom maître Ngagne ngeen dem wëri Ngagne Demba Touré ngeen débat ci xam-xam loolu may wax ni kon gaa yi yaa ngi yàlla may xolu muñ ba ñu mën a dund ak opposant yu bees yi fi nekk nga xam ne yàq ak wax lu dëgg lañ fi nekk. di ngeen fàtte di abonné di ñaanal yàlla réew mi di am jàmm soo di am jàmm Diomaye di am jàmm ñu liggéey réew mi jaay jëf gars yi